yéen a ngi teewlu info 221. info 221. keneen dem rek ci procès Adji Sarr ba tey la ñu daal di desandi ak Ousmane Sonko Juan Branco daal dina yëkkatiwaat ay kàddu moom mi nga xamante ne ab avocat la jóge woon bitim réew ngir jàppale Ousmane Sonko ah, ci wàllum àtte gi moom ak Mambay Niang waaye nag mu dudd ak fii ci ah, Sénégal ndax ca Ndakaaru ci ay rapport lañ ko daal di delluwaat moo daal di xam ne ne gis nañu ne dañoo inst ay instruction yi nga xamante ne yoon joxe na ko lu jëm ci justice internationale nee dinañ jéem a laal kii di Ousmane Sonko wala askanu Sénégal loolee dina wet xat ndax semaine bi saisir nañu lu toll ci ki nga xamante ni euh, Macky Sall euh, ki nga xamante rek mooy Diome Antoine Félix Diome waaye tamit ak magistrat fonctionnaire yi nga xamante ni ñoom jamono ji lépp lu leen nguur gi wax rek ci loolee lañ def ordre ji manifestation yi nga xamante ni dañ jàpp ne dafa illégal ba tax na rek nag ñu gis li nga xamante ne nemmeeku nañ fi ci Sénégal ba tey Juan Branco mu daal di xamle rek ne dinañu traquer responsabilité ba fépp fu mu yem rawatina naka policier nee na nag ñi ngi fàttaliku lépp lu jëm ci persécution jëm rek ci seen population rawatina ci askan askanu Sénégal te cible yi nag dañuy identifier ñi nga xamante ne foofee la ñuy jubal ak seen i attaque Juan Branco yemu fa de mi daal di xam ne rek ne constitué lépp systématisé dañ ko daal di constitué ab crime boo xamante ne imprescriptible la waaye tamit crime la contre l'humanité maanaam yi lu ñuy def nag loolu yoon ak ñiy sàkku lépp lu jëm ci àq ak askan wi yi ba tax na rek nee na moom Juan Branco dinañu fexe nag ba lépp loo xamante ni dinañ ànd ak dal ànd ak tey waaye namit jàpp nañ ne nag xoqutal ak méttital bu ñu def Ousmane sunko loole waaye tamit ak kiy jege ñaalem rawatina ci manifestation yi ci am ci noonee nag aventure wu ci wetu askan wi dina doon lu jafe ndaxte jamono ji dignitaire sénégalais yi nga xamante ne jamono ji mënuñu remettre les pieds maanaam dugal seen tànk foofee ci Sénégal lu toll si téeméer ak ñaar fukk ak ñett ci réew membre ji bokk ci commune ci lii di CPI di cour cour pénal international nag jamono ji ci tiitaange la ñu nekk ci jafe-jafe yi nga xamante ni Sénégal ñu ngi koy dund gis-gis bi nag di gis-gisu ki nga xamante ne rek mooy Juan Branco bokkoon ci avocat yi waroon jàppale Ousmane Sonko diggante procès moom ak Mame Mbaye waaye nag te yegg si Sénégal dañ ko ba mu yegg si si aéroport lañ ko daal di dellu waaye nag lépp lu jot ak lu am ci mbirum Ousmane Sonko da ciy fas yéene ab bind ab bataaxal gis-gisam ak doxalinu nguuru Macky Sall